këram laay dem jël avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak reket bi. waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy. sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gàmmu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg yàgg dañuy daje. duubal na fi kër gi yëpp ah, ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi. Obeuly takk na ko Papa takk na ko di ko jaay doole xatar bi ne ko daan na ko Obeuly na ko jël ba eh Batiment jël na tànk Obeuly de Batiment ak Obeuly Batiment moo nem moom ak Ibou Ndiaye ñu naan ko Obeuly moo yore ngembul xonq li mbëru Lamé Star bi ay ca ñaari mbër yaa nga ca dara xamagul Papa Ndiaye Ibou Ndiaye booy bu jëlaat na tànk bari Ibou Ndiaye def na ak moom rotation daan na ko Obeuly daan na ko jël bare na Papa Obeuly Obeuly Bouki Ndangane Papa Ndiaye Obeuly Bouki Ndangane ñoom ñaar seen combat ngi bëgg a yàgg de dara xamagul ba Bally Bouki Ndangane a xewagul quart de finale Papa Ndiaye Bouki Ndangane moo leen woon ginnaaw ñu naan ko Alaaji Ousmane moom moo jógee Ndangane Papa Ndiaye Ibou Ndiaye Diof yor ngeen jàkkaarloo mboru Lamé Star bi moo jógee parcelle Obeuly Obeuly am na ngemb de Obeuly ak sa waay Obeuly lonk na ko caxabal ba de dina ko daan wala caxabal ba mooy na eh Obeuly Obeuly kott na ko Obeuly dina ko daan daan na de Obeuly daan na ko eh, mburu lambe star bi daan na Obeuly daan na ko de. yaramam tàng na de Papa Ndiaye. seeli eh, lan na nii. ay waay. xoolal ma Obeuly yow. ay waay. ci loolu. Ibou Ndiaye Diouf yor gan sëg Papa Ndiaye Ibou Ndiaye Diouf yor ak gan sëg Papa seen combat bi yàgg na te métti de kenn nanguwul def initiative kenn nanguwul jël benn initiative nag Papa Ndiaye bëri calcul la donte si prédu si prédu bi la kenn du ko asaaloo sa combat waaye def leen différence amateur yi dañoo bëgg a ñibbi. arbitre baa ngi wax ñoom nee na leen bëre leen bëre woo leen bëre leen arbitre sifflé na Ahmed waaw Ibou Ndiaye Diofior day jàll pétition arbitral du ma. ca Papa Ndiaye arbitre sifflé na deuxième round diggante Ibou Ndiaye Diof yor ñu naan ko Obali moom ak Ngagne Sène wala nga ne Johnson le natif de Ndiaga Niao Papa Ndiaye. ayca Ngagne Sène Obali ngi dox si kawam de Ngagne Sène Obali Papa Ndiaye. Eh, Obali Ngagne Sène jël na tànk ba de Ngagne Sène jël ba takk na ko Ngagne Sène Obali Ngagne Sène takk na ko Obali bañ na. ngañ seen tak na Obeuly Obeuly bañ na de Papa Ndiaye dafa mën a loolu moom Obeuly mbotti hey top 5 Obeuly yóbbu na ngañ seen top 5 Papa Ndiaye yóbbu na ko top 5 seet teet teet teet teet yóbbu na seen jommi Papa Ndiaye ngañ seen waaru na seet teet teet teet teet teet këram laay dem jëli avance pour wan la ni man déggoo ma ñu xàmmee nañ piis ak rege bi waaw wàccal nga tëtal ma kër gaamu ngay booy sama yóbbal damaa bëgg mu yegg bu gaamu ñëwee nee na ko Tapha Mbeur nee na jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg-yàgg dañuy daje dóor na fi kër gi yëpp ah yëngal na kër gi yëpp fekku fi kenn ay jigéen rek la fekk si kër gi